والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين monsieur le gouverneur ñi ngi sant bu baax ci ni nga xam ne moom nga dirigé débat ba mu àgg di ko rafetlu bu baax di sant chef de service yi fi nekk xam ne kenn ku ci ne jël na engagement la mu mën a def mu wax ko te wóor nañu ne nañ ko waxee ni lañ koy defee ndax niñ ko mas a waxee rek noonu lañ ko doon def dara mos ci manqué muy yi aju ci service yépp am na yu ci gën a yitteel itam yoo xam ne xam ne yépp ñoo yitteel ay am na yu gën a yitteel ci ndax sécurité moom dafay loo xam ne mënul ñàkk ci fa mbooloo di daje wér gi mënul ñàkk mbooloo di daje assainissement mënu cee ñàkk kon day mel ci misaal ne mboolem service yi fi jël yépp benn bu ci ne dara mënu cee ñàkk ce la nga xam ne jël nga engagement def ko waaye ASROUTE jàpp nu ci yoon wi ba mu gën a yomb a ñëw lu ci gën a am solo la fa tabaarakallaahu ndax mel na ci misaal ne dañu waxoon daaw ne yoon wi danañ ko danañ ko danañ ko danañ ko tëli ba mu àgg te loolu mooy yéenewu sëriñ Sidi Muntaxa sëñ mun sëñ Sidi Muxtaar mi fi nekkoon mu amoon ci pësteef lool am ci taxawaay lool waaye xëy na li ñëwoon ci dëkk bi niñ ko répartiroon dafa tax jotu la agsi ci foofu loola moom it ñu ngi koy sàkku nañ ko waxe woon ñu defe ko noonu waxtu wu ñu amatee loo xam ne jëm si na ci dëkk bi te man koo godrone ñu godrone ko loolu ñu ngi koy wax di ko wax xalif seen général de Mouride mi nga xam ne moo fi nekk sëñ Muntaxa mu xam ne béréb boobu béréb la boo xam ne ñëpp war nañ cee jàpp seen loxo war nañ ci jàpp bu baax a baax ndax day loo xam ne xëy na dañ ci nekk di yëngutu waaye ñoom ñoo ko moom ñoom seen bopp ñoo ko moom ndax Seex Masàmba seen lépp la woon ku taxawal Sëriñ Tuubaa la woon xëy na danaa ci ñëw ci kanam insha allah yeneen yi ci des yiñ sàkku yépp itam nag lu teel la yoo xam ne mënul ñàkk kon nu leen sant ci engagement yi ngeen fi jël di sant préfet moom it ak sous préfet ci engagement yi ñuy jël pour ñu def évaluation xool liñ ci def ak di ci manqué commune itam na mu ko daa defe mu defe ko noonu am na nu mu defoon daaw noo xam ne su fekkee dem na ba xam ne vidas yi mënul am bu defee noonu it ñooy yem loolu moom xam na ko sëñ Baara mi ko même tu seqaloon xam nañ ko ñu defe ko noonu waaye lu ca mënul ñàkk daal ñu fexe ba dimb leen ci te wóor nañu ne am nañ pësté boobu am nañ taxawaay boobu am nañ yenn jooju itam tabaarakallaahu ah li nga xam ne moom itam am na solo lool moom mooy dëkk bi dafa xaw a genn dëkk nga xam ne sàndarmari xëy na ñoo ko mën a yor ñoo ko war a yor baax oh, nañ ko fi léegi post yi nekk ci diggante bi nga xam ne police ñoo ko yor danañu faral di téye oto yi lool sëñ Abdou Sa wax na ko léegi nga xam ne dañuy dañuy mujj ku ci ne ma yónni ndaw mu dem toppatoo pour ñu bàyyi ko te du def lu du sëf bagage yu jëm ci ci màggal bi kooku moom wala waar a mën a ñàkk la ndax kuy jàppale nit danga koy jàppale ci li nga xam ne mënul ñàkk oto boo xam ne mbaar lay doon sëf ay bagage quelque nit ña koy sarse nekk ca nga ne dafa mélange bagage kooku wax dëgg du du jàppale nit dañu bëgg ñu dimbalenu ci loolu mu man di soppiku ndax daaw son nañ ci lool te loolu rek am xëy na ña fa nekk ñoo koy def ni seeni kilifa duñu leen ko defloo kooku xam nañ ko bu baax mooy ni duwaan waxe rek xam nga euh, liggéey mooy il faut nga def sa liggéey waaye il faut nga toléré loo xam ne lii mënees na ko toléré mu jëm si ci liggéey chef service yëpp noonu la ñu waxee noonu la ñuy doxee te loolu mooy li jaadu itam nag ndax yoon état dafa am nu muy doxe noo xam ne mënul ñàkk kenn ku ne jox nañ la li nga war a liggéey lu ca manqué day mel ci misaal ne yow ci yow yow la manqué waaye loo ca def tolérance nag it dañu xam ne lii tolérance mënu ci ñàkk ñu def ko kon loolu ñu ngi ci ñu ngi koy ñu bu baax ci ñëpp ndax ñu bari dañuy jóge ci biir réew mi di ñëw béréb yoo xam ne gendarmerie ñoo fay nekk loolu moom itam bu ñu sàkkoo ci ñoom ñu xam ne événement bii am na danañ mën toléré lu bari fa tabaarakallaahu dana ci am solo toléré nag bu lu mën a doon na doon bu ànd ak sécurité waaye nag ay nit ñu yëg ci kaw bari lool di daanu di gaañu kooku ñu kenn bëggu ko suñ sañoon nit ñëpp dañuy ñëw ci jàmm delluwaat ci jàmm dara bañ leen gàllankoor yeneen yi ci des yëpp itam nag taxawaay yooyu rek lañ war a am ñu ngi leen ci sant bu baax di ñaan ñu taxawee ko ba mu mat sëkk fa di sant président la république mi nga xam ne fa tabarakallahu taxawaayam ci bés yi xam nañ ko bu baax ah, taxawaay yu rafet la yitte ju mat sëkk lay doon la mu ciy jàpp ak la mu ciy jàppale day bari lool te taxawe ko loolu ñu ngi koy ci sant bu baax di ko di ko di ko di ko di ko di ko soññ di ko soññ gouvernement bi nga xam ne moo fi nekk bi fiy doog a nekk xëy na bés bi dana fekk ñoom ñëpp ñu installé wu nañ daa doxe kenn ku ca nekk mu doxe noonu dañ daa taxawe ñu taxawe ko loolu dana doon suñu mbégte bu baax a baax dana doon mbégteelu sëñ Moustapha ci boppam euh, niki noonu Aliou Ndiaye ministre de l'intérieur moom itam taxawaay bu mu amoon ci bis yooyu ñu ko koy fàttali bu baax mu am ci taxawaay boobu te gën cee gën gën gën cee soññ bu baax a baax gannaaw bu loolu wee nag moom li ñuy wax mooy daaw waxoon nañ leen kan mooy Cheikh Moussa ni mu demee woon ak Serigne Touba ren nag li ma ciy dolli du dara lu dul li Seex sàmba demee woon ak waa Kër Sëñ Mor Anta Sali nga xam ne ñoom ñëpp presque ñoo ko mag tàmbali ci Sëñ Mor Jaara maam Thierno sëñ Cheikh Anta sëñ Afia Mbacke rakki sëñ Cheikh Anta ak sëñ Cheikh Coro ak sëñ Balla Coro. ak sëñ Cheikh Cheikh Absa mi nga xam ne moom la tudd tudde sax guddi bi jiitu màggal gi incha allah ni mu nekkee woon ak ñoom dafa doon yàlla daf koo dimbali woon muy koo xam ne nangu woon kilifteef lool yàlla dimbali ko muy ko xàmmee tam te xàmmee te yaroo ci loxo sëriñ bi xam ne moo ko jàngal comme ni ma leen ko waxee woon fii daaw ba mottali ji ay xam-xam ci yeneen béréb waaye li ëpp solo nag mu defee ko foofu ci moom muy yar xam nu mu jëflante ak kilifa xam nu muy def kilifaam xam nu mu koy wormaale xam nu mu koy tarale noonu la nekkoon digganteem ak sëñ Mor Jaara daf ko daf ko bëggoon lool fonkoon ko lool du gëje ak moom di ñëw di ko seet si waxtu wu nekk di déglu ay conseil am ak i ndigalam ak i ndénkaanam mu di ko jëfe lu baree bari sëñ ma sëñ Mor Jaara daana ko séq ak sëñ sàmba ci kooku wàll niki noonu maam Thierno Ibra yi moom it daate bu toogee ab diir day dem Daaru Muxti seeti ko bu fay dem dafay ànd ak njabootam yu bari bu ñu demee dan day gis dëkk bi mu seetal ko ba mu gën a set becc wax leen diggal leen nañ nañ ko def mu toog ca ca yàkka ja fa lay toog ba ñu seetal dëkk ba mu set becc mu doog dem nuyoo ak moom bu nekkee mu nekkee ak moom ñu toog waxtaane yi war a waxtaan moom it mu daa ko conseil yu bari ci ay dox doxinam ndax sëriñ Masamba yàlla dafa dogaloon àdduna moom ci gannaaw loxoom la ko tegoon rek sëriñ bi rek la tegoon ba ah, bi nga xamee ne yàlla dogal na sëñ Touba digal leen moom ak sëñ Fallou sëñ Modou Moustapha ñu ñëw tuubaa sanc dëkk yooyu ñu sanc itam wax nañ ko fi ay yoon mu muy euh, tindoo di ak Daaru Karim <coughs> yi ñuy defar tey ah, sëñ ma Massamba dafa mënul doon toog moom ndax dafa toog tuuti rek sëriñ bi woo ko maa ngi koy wax léegi gouverneur ci biir mu ñëwaat delsi fi moom ba moo tax dëkk bi dem ba agsi fii ñu du ko doog a sancaat ah loolu maam Thierno xoosee na ko ci ba tàyyi ne ko ne ko Massamba waa ja demal sa dëkk boobee toppatoo ko te taxawu ko waaye loola moom xam na ne moo war waaye nag lay yitteem moom mooy li sëriñ bi bëgg rek mu nekk ci loolu ko ñoroon leneen ñoru ba dëkk ba mësul mel ni dëkk yooyu mel ndax saxu fa am naa nag ñoom fa toogloo woon ñoo xam ne ñoo fa nekkoon muy sëñ Modou Fati Khari di wayjuru sëñ Fallou mi muy sëñ Daam Baleloo moom itam doon kilifa sëñ Modou moo moo moo moo moo mi nekk fii Modou Lo taxawaay yu rafet lañ taxawoon amoon nañ ko waaye nag jëmmi taxawaayu boppam nag manqué woon na fa ndax nekk ci diggalu sëriñ bi rek loolu maam Thierno daan na ko ci conseiller lu bare bare bare bare maam Cheikh Anta moom seen diggante dafa dafa dafa ràññiku woon lool ba jëflante ni jëflante jëflante sayt yoo xam ne sax ah, du du jar tudd fii waaye yu yu yu xóot a xóot la fa tabaarakallaahu la ca ëpp solo nag mooy bi yàlla dogalee mu jóge fii moom ak sëñ Afia di rakkam nga xam dañoo jege lool ah, dafa dem nek daru salam nek na fa luma juroom juróom benn weer yoo xam ne génn fa taxawu njaboot ga di leen guider di leen dimbale eh, di leen soutenir kemtulaay lamu ca man lépp waaye loolu mi ngi ko defoon sax ci ndigalu ay kilifa waaye nag fekk na booba loolu mooy bëgg-bëggam moom bëgg-bëggam mooy sëñ taxawu maam sexanta lool taxawu sëñ afiyel lool taxawu njaboot gi yépp ba njaboot gi xàmmeewu njabootu Daaru Salaam ak njabootu Seex Masamba ñëpp gànn lañu niki noonu la jëflante ak sëñ Seex ab sa sëñ sëñ Balla Coro sëñ Balla Coro dafa nekkoon ak moom ci njaareem ci kër sëñ Touba moom mu yor lam fa yoroon di wàllu xasida yi wàllu jàng mi wàllu alxuraan mu yor ko sëñ Balla Coro nekk fa moom itam yàlla dogaloon mu jàng nekkal fi sëriñ bi te ci di jàng leetar yi ak di ko toppatoo ak di ko taxawu ak di def tradiction yi loolu mooy lim doon def waaye moo Seex sàmba dañoo nekkoon benn mësuñu taqalikoo benn yoon bëggante lool soppante lool te doyloonte lool noonu lañ demee woon sëñ Seex Coro ni ki noonu bi mu fi jógee sax sëñ tubaab moom la yebal mu def délégation bu mag ne ko na nga dem Ndar jaale ji ko te taxawul ma leen sëñ sàmba dem fa taxawul sëñ Seex Coro taxawaay bu rafet dox fa yem fa war a dox yëpp taxaw fa yem fa war a joxe joxe pan digal yem fa war a joxe yëpp doo ko delte woon ak njabootu sëriñ Masamba mosuñu tàqalikoo benn yoon nii mooy doxin yi nga xam ne moom lañ doon doxee sëñ Must sëñ Modou Moustapha ak sëñ Fallou waxaalewuñ leen ñoom ñoom benn la ñu woon sëñ Touba daf leen defoon benn lu muy def day wax Masamba ak Moustapha ak Fallilu def leen nangam di leen fàttali ne sëñ Fallou di leen fàttali ne sëñ Masamba seen way jur la de na ngeen ko def way jur te fekk na ñoom it noonu lañ ko jàppe woon moom it mu jàppe leen sëriñ Touba jàppe leen sëriñ noonu la doon noonu la seenu doxin meloon sëriñ sàmma nii la doon doxee nii la jëflante woon ak mbooleem seex yi nga xam ne ak ñoo bokkoon sëriñ Touba itam te ñu nekkoon jaareem seex yi yépp kenn ku ca ne day mel ci misaal ne sa bunt ci moo mooy mooy sëñ Massamba looy dox ci sëriñ bi day da da da cay bokk da cee ànd leen sëñ bii digal itam mu dem mu di ko fàttali waxtu wu nekk doxin wa daal fa tabarakallaahu doxin bu baax la woon taxawaayam taxawaay bu baax la woon fa tabarakallaahu ba tax na kon ku jàpp ci bisam mën na maa jàpp ne suñu borom mën na laa dimbale mën ngaa am ndam ci la ngay yëngutu lu man ci mën a doon ndax kat ku am ngërëm képp ku ku ku ko def ku ko gërëm loo fa tabarakallaahu suñu borom dina la dimbale loolu moo tax gouverneur ñu ngi leen di sant bu baax mi ngi lay gërëm bu baax di ñaan yàlla dolli leen sutura bu baax reso bi yàlla na ko yàlla boole ci réseau yi gën a jëm ci kanam ndax sëriñ Touba di fu mu nekk wóor nañu ne suuf soosee suuf su barkeel lay doon lu nekk mën naa am fii senegal pétrole ak gaz ak yëpp bu fi ñëwee buñ ko yéem buñ ci naw dara ndax la nekk fa Madinatul Munawwara mën naa nekk fii ci Touba te dara waralu ko woon lu taxawaay ak gëm yàlla ak bëgg yàlla ak doyloo ko. ak jox jox seen lépp sëriñ Tuubaa jox seen lépp sunu borom tabaaraka wa taala ba mu mat sëkk lu ñu am lu am lu ne looloo ko mën a amal dëkk réew mii nag mën naa mel ni réew yëpp fa tabaarakallaahu ci koom-koom mën naa mel ni réew yëpp ci ay ressources yoo am ci biir suuf si ak ci biti bi yàlla na ko fi yàlla def te mu génn te mu jariñoo ko te mu njëriñu peuple bi yàlla mën na koo def yàlla na ko yàlla def wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.